nataal ñaar bi Jésus dekkee ba am ñent fukki fan am na ñu mu feeñu ñu bari gis nañu ko xam ne deewul léegi nag jot na mu dellu asamaan matal na liggéey bi ko taxoon a ñëw Jésus wax ay ndongoom ñu dem nettali li mu def lépp ci kanamu mbooloo mi mu daldi yéeg ci jaww ji ba kenn gisatul ñaari malaaka daldi feeñu ndongoom yi xamal leen ni Jésus dina dellu si si suuf ni mu yéege ci kaw léegi mu ngi ci kaw asamaan ngir waajal tertu képp ku gëm te ànd ak moom Jésus mooy yoon wi ñuy yóbbu si yàlla